Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD ñoo di may de presse dal leen ak jàmm ci yëglekaay yéenekaay yu bëree bëri xëy nañu àddu tey ji nag jëmale ci li nga xam ne rek mooy rapport yi ñu doon jébbal njiitu réew Sénégal jëmale ko ci lu tukkee ci waxtaan wi nga xam ne rek moom lañ doon amal jëmale ko ci wàllu yoon réew mi ko quotidien na fanweeri poñ jamono ji nag tënk nañu ko ci waxtaan yooyee daal di koy jébbal président Bassirou Diomaye Faye mu di ay proposition yoo xam ne rek jëm na ci wàllu retour de parquet lu jëmit ci wàllu juge des libertés waaye taxawal itam nag ab cour constitutionnel ak yeneen ak yeneen président Bassirou Diomaye Faye nag ma ngay xam ba déggoo ca jamono ji ma ngay woo askan wi bi nga xam ne rek a appliquer recommandation yi tukkee nag ca assise nationale yi ñu yoon wa jamono ji nag moom fi mu toll nii nag ma ngay xam ne ne lépp loo xam ne rek waxtaanee nañ nañ ko ba déggoo ko ci yooyee assise daañu ko tàmbalee doxal enquête yëglekaay àddu jëmale nag ci assise nationale yooyee ñu doon amal am na lees waxul mu ne lu ca nekk yéenekaay bi ne Sénégal am na lu toll ci ci ay magistrats am lu toll ci ci ay avocats yoo xam ne ñu ngi nekk ci diggante Fatick Kaffrine Sédhiou ak Matam waaye tamit am na yeneen i barab yoo xam ne rek ñu ngi fii ci biir réew mi te amuli avocat waaye nag jàppaleen ne président Bassirou Diomaye ak juge des libertés et de la détention Sud Quotidien des ba tey ci rapport yooyee nga xam ne rek moom la tënkee ci ndaje mi ñu doon amal ngir jooyanti jafe-jafe yi ñuy jànkonteel ci wàllu yoon te ñu jébbal ko kii di président Bassirou Diomaye Faye yéene kaay bi ne desug Diomaye Faye ci biir conseil supérieur de la magistrature nag dara leeragu ca waaye moom jiitu réew mi ma ngay xam le ni daal lépp lu tukkee ci assises yooyee rek daañu ko ko ne lu jëm kay ci desam jëmale laas yëglekaay ne njiitu réew mi kay fi mu toll nii nag nee na leen mooy mën a am day des ci conseil supérieur de la magistrature bi mbaa mu génn ca bàyyi leen doxal waaye nag lu mu ci mënti doon sàkku na ñu di may nopp ñii di magistrat yi nag bu ko defee ñu daal di waxtaan seen biir waaye nag lépp loo xam ne rek tukkee na ci seen waxtaan woowee daanu ko appliqué ndax wàllu yoon toll nañ ci jamono joo xam ne rek lépp luñ ca jooyanti rek ba tey ci li nga xam ne rek mooy jébbal yi nga xam ne wàllu yoon yéenekaay bi ne président Diomaye Faye desam ci biir conseil supérieur de la magistrature nag dara leeragu ca moom daal jamono ji nag ñii di magistrat yi rek lay déglu ci kaw bu ñu déggoowee ci mu génn mbaa mu toog ci biir kuréel googee bu fekkente ni waxtaan nañu seen biir ñoom magistrat yi nag ba gis ne daal génn ci kuréel googee itam mooy li leen gënal moom it du ko yàggal benn yoon dana leen won ginnaaw bàyyi leen ñu doxal seenub liggéey ci biir yëglekaay bi di Les Échos moom président Bassirou Diomaye Faye nag ma ngay xam ne ni man xam naa bu baax li ma indi fii ci palais de lenn loo xam ne rek lu jaarul yoon la ngir bëgg a des ci biir conseil supérieur de la magistrature l'observateur di jox kàddu professeur Babacar Gueye moom mi nga xam ne rek moo nekkoon facilitateur bi ma ngay xamle ci waxtaani mu séq ak président Bassirou Diomaye Faye njiitu réew mi ma ngay dalal seenum xel di xamle ne lépp loo xam ne rek ay recommandation la yu ñu tënkee ci ndaje mi ñu doon amal lépp daañu ko jëfee libération ne en tout cas daal président de la république nag jot na ponk yi nga la justice yi ñu doon amal duñu ko bàyyi muy nelaw ci turwaal yi ndax lépp daañu ko fa yéenee doxal te yoon bu Sénégal dina am beneenub xar kanam bu yees Le Soleil yëglekaay ne ko démb lañ ko doon jébbal li nga xam ne rek moo tukkee ci assises nationale yi waaye nag fi mu toll nii moom jiitu réew mi yàkkamti na nag ñu daal di tàmbalee appliquer lépp loo xam ne rek moo tukkee ci yooyee assises addu jëmale ci ne leen loo xam ne rek addu nañ ci jëmale nikk tey jii ci yéenekaay yi bokk na ci l'info mi nga xam ne rek dellu suwaat na ci coowal Didier Badji ak Fulbert Sambou yéenekaay bi ne ginnaaw bomb bi nga xam ne

bi di bëri ndax dossier bi nga xam ne rek moo soxol Didier Badji ak Fulbert Sambou lépp li nga xam ne rek moo ci war a tukkee mu dib leeraange dinañu ci taxaw dox ci ba mu leer naa ñu ci bopp sénégalais yi Ismaïla Madior Fall ma ngay leeral kàddu yeeg na mu ko bëggoon a waxee jàpp ne loolee lapsus la waaye nag kii di maître Patrick Kabou ma ngay xam ne ni nag ab plainte moom daañu ko déposé ci table procureur addu jëmale ci wàllu mbëkk mu jaarul yoon mi nga téeméer ak juróom fukk ak juróomi candidat ñoo nekkoon ci biir gaal googee doon mbëkki ji ca biti réew l'observateur ne ko moom kay ëpp na fanweer waaye juróom-ñett fukki doom aadama ak juróom-ñaar ñoo ñàkk seen bakkan juróom benn fukk ya réer kenn gisu leen yéenekaay bi ne ca njaago nekk ca diwaan bu saint wi nag foofee la ñu bàyyeekoo woon ngir dem wutali ji ca Espagne addu jëmaleek réew mi people tey jii ma nga xëyee nag lu jëm ci corridor atum 2024 mu di ab événement boo xam ne rek ñu ngi ko dippee endurance ginnaaw ay weer ñu nekk ci wàccaay wi nag fukk ak juróom édition bu corridor nag daañu ko amal samedi juróom benn fan ci weeru juillet bu ren ji nag tem bañ ca jàpp moo di endurance njiital MEDES mi nga xam ne rek moo di initiateur bi jamono ji nag ma ngay dalal ay collaborateur am bàyyeekoo ca Paris ca Nantes ca Québec ca Dubaï ba ca Makka fukk ak juróom ñeenteelu édition bii nag wàccaay week nañu ko fas yéene doxalee taarix bi nga xam ne rek moom la corridor yi am lépp nag kii di président Mbagnick Diop leeral na ko ci biir xëtu yéenekaay bi yër leen ko ci nu mu gën a yaatoo wàllu tàggat yaram stade yëglekaay